Boubou Diakhaté ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi FM. merci beaucoup waa Rewmi FM di leen di leen nuyu di leen di leen di leen di leen di ci invitation bi. ñuy fàttali ñu mhm. déglu yéen ñëpp. auditeurs Rewmi auditeurs yooyu la ñuy fàttali ne moom moo jiite mouvement des jeunes LD Debout euh, tey jii ñu gis ne euh, kii di professeur Abdoulaye Bathily gannaaw nag euh, ba muy def benn contribution ci benn événement yëkkati ay kàddu dem ci doxinu réew mi. li mel nag mu tax ba fu ne ñu ngi koy ngawti ngawte tey jii. yéen LD ngeen jógaat mel ni kuy tontu euh, ndax dafa mel ni euh, da ngeen jàpp ne euh, débat bi pertinent wul. Eh, bon euh, je pense que du du débat sax parce que professeur Abdoulaye Bathily li mu wax yaakaar naa ne dañ ko war a rafetlu parce que boo xoolee. Mhm. ki am juróom benn fukki ak expérience ci biir réew mi. Mhm. Afrique yëpp naw ko adduna bi yëpp naw ko bu taxawee di ñaax di interpeller nguur gi. Mhm. ne ko ah lii ma gis de raam bi li lii raam ci ñàkk bi la jëm. Mhm. nañu geestu xoolaat suñu bopp am nañ fi liggéey boo xamante ni askanu Sénégal gépp a ko bokk muy assise nationale. Mhm. nga xamante ne def nañ ci liggéey yu ama am solo amul benn secteur d'activité bu ñu bàyyi amul benn localité bu ñu bàyyi ba ci diaspora bi ñu liggéey liggéey bu am solo boobu le président le doyen amul Mokhtar moom jiite ko ci liggéey bu ama mucc ayib waaw ñun Sénégal bu ñu amee liggéey bu toll noonu pour suñu réew ba léegi ñu koy ñu koy ñu ñu koy ñu ñu koy ñu ñu def ko ci tiroir yi di ko ñàkkal fayda mhm. bañ koo jëfandikoo moom bu ñëwee en tant que mag wax ni ah lii de buñ ko jëfandikoo dinañu dimbali fi ñu jëm mhm. yaakaar naa ne loolu nguur gu bëgg liggéey nguur gu fas yéene liggéey loolu da ko war a rafetlu parce que nag loolu mooy yëfu kilifa du wax ji mu wax mooy yëfu kilifa mooy nga gis la nga lu xamante ne baaxul nga wax ko te démarche boobu noonu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy saluer parce que c'est une sage démarche la démarche a été sage et vraiment patriote léegi nag mag mag mag naa bàyyi si réew koo xamante ne dund na li nga dundul def na li nga deful xam na loo xamul fu nekk ci àdduna bi dem na fa kooku bu waxee booy dem ba di ko tontu da nga war a xalaataan li mu wax. ah mais mais mais moom wax na. xanaa nag war ngeen mën a nangul euh, beneen camp bi ñu tontu wala. non ñoom ñoo ñoom tontu ñu. dañoo xasaate. Hmm. yàq der parce que moom ci li fi fi mu waxee. Hmm. bu fekkee ne ñoom seen tontu bi dañoo ñëw wax foofu. indi ko ay tontu ci foofu noonu ci fi mu waxee. yaakaar naa ne benn sénégalais du ci wax kenn du ci wax ñun ñi sax duñ ci wax kenn du ci wax. kon yéen tey li ngeen gën a li ngeen li ngeen bëggoon mooy ay débat d'idées. exactement mais du du ñun sax est-ce Sénégal yëpp moo doon xaar loolu ci ñoom comme que ñoom dañ ne structure cadre la. Mhm. structure cadre booy dem ba ji wax ba di tontu da ko war a teg ci xel ci xam-xam. waaye du ay ton ay ay xasaate wala wala wala wala wala di di di di di jéem a doomu aadama wax wax ji débat foofu. Mhm. sénégalais fi ñu doon xaar ci ñoom ñu indi des réponses intellectuelles di par des idées foofu lañu leen xaar foofu lañ leen doon xaar. Mhm. tey Boubou Diakhaté euh, ñuy mhm. waajal. ay local ñu wax élection euh, locale 2022 ndax jàpp nañ date bi yéen LD tey mën nañoo jàpp ne euh, carrément yéen a ngi ci opposition exactement euh, tey tamit ñuy wax ne opposition ñoo ngi rumandaat ne benn coalition bu mag mi nga xam ne ñoom ñooy ànd ñu ngi koy waajal ndax yéen ñi ànd ngeen ci exactement ñu ngi ci ànd nañ ci parce que ñun boo xoolee ñun loolu mooy suñu démarche parce que ñun dañoo gëm ne opposition dañoo war a booloo nekk benn say liggéey parce que loolu rek moo ñu mën a may ndam ci xeex yi ñu jëm. te loolu ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax. kon daal jàpp nga ne euh, opposition bu àndul dem euh, ci local yooyu la amul benn chance dem de manière individuelle. <laughs> loolu kay loolu kay mooy lu mooy mooy ñëpp lu yoon parce que te jii. Hmm. boo xoolee histoire politique Sénégal. jamais dans l'histoire politique du euh, Sénégal opposition dem à rang dispersé wala benn par benn loolu mës mënul mësul nekk chance si ñoom tey jii nii suñu chance mooy boole lu ñu naan booloo mooy doole. Mhm. te loolu yaakaar naa ne bu ñu ko defee loolu rek mooy seule alternative pour que ñu jëlee fi nguur gi fi nekk dans toutes les localités yi génne leen ci mairie yi pour liggéey réew mi. mais tey ni nga seetloo opposition bi ngay acteur politique gis li fi nekk am jàngat tey ndax yow gis nga ni opposition bi tey jii bu ñu leen dajalee ñëpp dinañ ànd ci dajale googu. bon je pense que euh, dajale ñëpp loolu liggéey bu jafe la. Hmm. lo buñ ko amee jël waaye lu jafe la xam na on est conscient ne loolu jomb la am parce que bépp boo gis rek am na ñoo xamante ne. Euh, du ñu bokkee gis-gis. Mm-hmm. du ñu bokkee xalaat par rapport ak euh, initiative yooyu. Mm-hmm. mais ñun duñ suñ bu nekkoon suñu coobare mooy regrouper toutes les forces vives de la nation. Mm-hmm. toute la classe politique. toutes les organisations même même organisations euh, citoyennes yi les mouvements citoyens et autres parce que yaakaar naa ne liggéey euh, xeex bi warul des seulement ci politiques yi mais ñun ñëpp askanu Sénégal yëpp ñu ñoo war a booloo liggéeyandoo pour que sa jëlee li fi nekk. Mhm. tey ah. jii euh, opposition bi euh, justement euh, noo ko jàngatee Barthélemy moom nee na gisu fi opposition opposition guy layam layami la fi gis gu silencieuse ay dil la gis ak yeneen ak yeneen ndax yow ànd nga si jàngat googu. bon man ànduma ak ànduma ci jàngat boobu parce que tamit opposition am na fi. Mm. opposition am na fi. Euh, dafa fekk rek ne euh, dafa am lu xamante ne ci ay doxalinam euh, amul njekk amul teraanga amul rafetal amul respect ci opposition mhm. loolu moo fi nekk mais opposition mi ngi fi maintenant nag ku ci nekk ak sa ak sa ak sa ak sa ak say mhm. ku ci nekk ak say démarche mhm. nañ ko nangul moom démarche am mais aussi nañ xam ne réew mi ba réew mi opposition am na fi. Mm-hmm. te nag luñ fi jotal liggéey as tuut buñ ko xeet te dañuy jëm ci ay ay ay jongante. Mm-hmm. te tey jii nii lu luy yoon mooy ñu rafetal booloo ñëpp ñu ànd liggéeyandoo. loolu rek moom moom mooy moo ñu si mën a génne. kon yow tey reconnaître nga ne Macky Sall ba muy euh, agsi ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression kon tey réussir na mission boobu. Euh, je pense que réussir ko. mais boppam boppam mbir mi ci boppam la la këpp. nan parce que boo xoolee. jamais dans l'histoire politique de ce pays musuñu am nguur gu euh, impopulaire comme nguuru Macky Sall jamais dans l'histoire politique aussi contesté ce qui veut dire que tey jii nii euh, maanaam jóg ne dama dama bëgg réduire opposition bi loolu da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko téye ci xolom ba mbir mi dafa këpp ci moo naam lu ñu naan yéene euh, euh, ci borom lay coon lay këpp mais taxul ñu gis opposition mu saisir boobule opportunité kon dafa mel ni ba tey euh, mais mais opposition bi opposition bi mu ngi koy mu à sa manière parce que tey jii nii tamit tey jii nii kooku puisse eh, dire Macky ci biir réew mi dugg dugal ci biir réew mi nga laaj Sénégalais yi. mais mais mais mais jaxatee bu yàggul rek lañ jóge ay élections gis nañu élections yi ni mu demee. Mm-hmm. Oh, waaw. gis nañ élection yi ñu demee élection yoo xamante ne jaarul yoon wuruj sàcc lu def nañ ko ci <laughs> waaw loolu loolu lañ gis mooy mooy mooy revenir ak li ma wax rek ci seen i inélégance amuñu benn élégance démocratique dans leur démarche moo tax tey jii nii euh, rapport de force démocratique boobu ñu soxla ci réew mi loolu du am du feeñ parce que ku jóg ñu ñu ñu lay ñu lay jiñ fii ñu lay yàqal fii ñu lay troxal fii loolu loolu loolu moo tax tey ji jii opposition bi mënuñu fës mënuñu gis seen liggéey mënuñu gis seen taxawaay mais opposition am na mi ngi liggéey te bu soobee yàlla ci jamonte yi ñu jëm ci xeex yi ñu jëm mhm. dina gis opposition bu dëgër bu taxaw et justement sànq yaa ngi koy wax ci kàllaamay nasaraan ne mhm. yéen a ngi waajal benn coalition euh, démocratique euh, en quelque sorte Mm-hmm. rassemblement démocratique social. d'accord euh, mm-hmm. te te yéen ci yéen a ngi ciy liggéey sori ngeen ci. exactement ñu ngi si liggéey bu baax a baax sori nañ ci te incha allah bis ñi fan yi ñu dinañ gis euh, dinañ gis bu soobee yàlla. mais jongante li ci des bariwul boo koy natt tey jii dafa mel ni euh, pouvoir muy yóbbu Benno Bokk Yaakaar ñoom taxaw nañ déjà parce que meeting yi ñu ngi koy nemmeeku fu nekk. Mm-hmm. waaw élection maa bi yéexul. élection élection locale moom. Euh, c' est des questions locales localité yi ñoo koy réglé seen bopp. waaye mm, ñoo ngay jóg te ku nekk fa nga nekk. waaw waaw ñoo ngi jóg waaye nit ñi tamit tooguñu. <laughs> d' accord opposition tamit tooguñu de gaa yaa ngi gaa yaa ngi liggéey de. <laughs> d' accord euh, ko weesoo ñu wax ci redécoupage Dakar bi tey jii ban jàngat nga am ci boobu le projet. je pense que c' est un projet politique et politicien que Macky Sall a encore entrepris parce que boo xoolee pour rappel. Macky Sall moo taxawoon xeex ŋañ ba ko Ablaye ba Ablaye Wade bëggoon def ay découpage hmm. Macky Sall moo taxawoon ne lii du yoon baaxul ci réew mi hmm. découpage administratif yi tey moom bu ñëwee def lu mel noonu mooy tàmmal nañu ko lu mu wax rek dellu ci waat donc loolu nañ ko xamee ça ne nous surprend pas mais quand Euh, euh, projet politique la mais réponse politique moom moom moo ci tegu. mais yow jàpp nga ne projet jàpp nga ne projet politique la au moment où ay observateurs ñoom nee nañu euh, dafa am ñi nga xam ne dañ leen am dafa am lu ñu leen xañoon tey delloo nañ leen ko bu ñu jëlee exemple Sangalkam ak Bambilor. waaw je pense que le cas de Sangalkam et Bambilor cas boobu cas exceptionnel la. Hmm. prox ndoll la rek ci par rapport ak vision bu ñoom bu ñu ci am. ñoom tey jii nii xam nañ ne ci élection la jëm projet boobu noonu du lenn dul fexe lu ñuy jéem a sàcc ak euh, euh, euh, akimoo gox gox goxaat yi loolu rek moo tax mais question Sangalkam bi ak ak Bambilor loolu trop ndol rek ci ci ci ci mbir mi mais projet bi ci ci boppam ça va au-delà de ça c'est juste échéance ñuy jëm pour xool naka la ñuy lijjantee localité yi. Mhm. loolu rek la. Boubou Diakhaté ñu jeexaleeg euh, li nga xam ne mooy local euh, deux mille vingt deux ñu fixé ko mhm. foofu ndax foofu lañ ko fixé. ba tey euh, muy yu njëkk yi nga xam ne am mhm. amal nañ ko gannaaw référendum gi ñu wees. donc candidat yu bëri dinañ leen nemmeeku tey ji ku ci mel ni man mën naa déposer sama candidature ci benn gox entre autres. ndax yéen ñi doon ay politique ngeen xam ne yàgg ngeen yàgg nañ leen gis ci. ci localité yi mm-hmm. euh, ngeen bëgg tamit di briguer suffrage euh, population bi ndax loolu euh, melul nii dañ leen di maanaam dañ leen di xeer tey wala dañ am ngeen ay concurrents yu bees non man man aw ma ci gis-gis boobu man wax dëgg yàlla damay rafetlu loolu mm. parce que yaakaar naa ne tey jii nii en tant que aussi nañ xam ñun gënuñu fi ñëpp c'est pas seulement politique yi ñoo war a liggéey wala ñoo mën a liggéey wala ñoo war a war a nekk ay candidat ci gox-goxaan dañ ne ay élection gox-goxaan tey jii nii képp koo xamante ne mën nga am nga yéene am nga yéene ci sa gox pour liggéey ko. Mhm. wax dëgg yàlla man de damay encourager loolu parce que nag réew mi ñun ñëpp ñoo ko mën a defar ñoo ko war a defar du politique yi kese. ñëpp bépp force même les mouvements citoyens dañoo mën a dañoo war jóg bokk ci jongante yi parce que tamit euh, liggéey euh, réew mi doomu réew yi ñoom ñoo koy defar te surtout aussi di interpeller jeunesse jeunes yi parce que tey jii nii jeunesse bi dafa jot ñu jóg xeex ci suñuy gox pour que liggéey bi ci war ñu mën koo taxaw. kon daal yow gis nga ci ay avantages jàpp nga ne dina renouveler lii di euh, classe politique bi. exactement bu bu la classe même euh, gox goxaan yi ko soxla ñoo soxla dañoo soxla tamit nit ñoo xamante ne dañoo jóg liggéey mais pas ñoo xamante ne seulement dañoo ñëw rek ak seen i ak seen i programme ak jaxatee ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax. man maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm. may fàttali euh, auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal euh, kii jiite mouvement des jeunes de la LD de Bodiadief. merci beaucoup merci beaucoup madame.